salaamaaleykum Jiman ma ngi lay nuyu di nuyu wa sen salum info bi yep wa site bi di len gërem encore une fois ci sen teewaay fi di len xamal rek bon man ma ngi tuddu Baye Mor sen deuk kaolak fi di fi yëngu Nek euh, xarit ci bébé salum ñu juddandoo yarondo bok ak mom benn koñ vraiment kontaan nañ aussi ci sen teewaay fi di nuyu wa kaolak bi yep ak wa senegal bi yep jaja bon bébé ñu xamanté temps boy parce que ño juddandoo ño yarondo ño bok koñ sen kër ak suñu kër sorewul seen kër nekkoon ci terrain bi ci bun seen bundu kër fa terrain bi ñoon fubalee nekkee donc ñun fa lañ daan fubalee sak ngoon fa lañ daan defee lépp lu ñu daan def ci wàllu xale fa lañ ko daan defee mu nekk xale comme ñun jaar ci li booy di jaar yëpp ay fubal sumbu affaire yooyu yëpp ñu jaarandoo ji ba yàlla def bi mu fiy jugee di dem Dakar parce que après moom mu ngi doon liggéey fii fi la jàngee métier métier mu permettre ko mu dem Dakar commencé bon liggéey foofu ñun aussi ñu nekk fa benn instant presque ñoo fi génnandoo mais ñun ñëpp dañoo dem liggéey aussi daan ñëw chaque événement événement bu ma saan a jot dañuy daje ñun ñëpp gisee faw ndoo footballandoo comme ñëpp ba benn instant ci lañ jekk gis ko muy bëre parce que moom carrière am débuté wu ko fii Kaolack fii bëre wu man ci li ma xam fii bëre wu fi benn yoon man bi ma koy njëkk a gis sax mu may jox jëmmi mbër événement la parce que dafa ñëw événement bi ñu gisee nuyoo draayante nii ñu toogaat ba ci guddi gi ñu dajeewaat ñu nuyoowaat mu jox ma loxo affaire yi ma xam ne kii mi ngi commencé dugg ci affaire bu bëre quoi yàlla di def yàlla di def ba benn jour ma dem Dakar dem yaraax dugg seeraas bi noonu ci buntu seeraas bi daje fa ak moom ñu dajee ñu nuyoo wante waxtaan lu yàgg ci la may expliquer quoi ma ne ko ok yàlla na si yàlla defal jàmm noonu juste événement bi amaat mu ñëw tabaski si comme noonu rek ñu gisee waat noonu affaire ba benn jour daal ma toog rek man yàgg naa dégg sax bébé Saalum bébé Saalum mais xamu woon ne dan la xamu woon ne dan la ba benn jour comme am ak Amat bu Lansar maa ngi ko seetaanee Thiès combat bi maa ngi dégg Malick Thiandoum di reporté Bébé Saloum Bébé Saloum di reporté ba Bébé daan ba pare bi Bébé daanee man ba toog ci plateau bi ci laay doog xam ne kii daan la. affaire bi nag après marqué ma ma woote koñ ba waa koñ ba di yuuxu di nangam depuis boobu ba léegi ma koy siiwul ci carrière am combat yi mu bëree yu ci bëree bëree damay jógee fii dem seetaani ko. ci veille combat bi dañuy déggante jouru combat bi damay dem këram ba ci bi koy Ama Baldé di daan première défaite am seetaan naa ko deuxième défaite bi koy Gouye Gui di daan aussi. këram lañ jugee foofu fees amuñ fu ñu dal mu yóbbu ñu Grand fu ñu dal fa yendoog gars yi supporters yi ba ngoon ñu dem stade combat am ak Reug Reug man ak moom ñoo bokk benn bool bu ñu añ ci jouru combat bi donc mu nekk nit ku baax am jom aussi ñafe carrière am ba yeesi fii mu yeesi quoi vraiment. parce que mënoon na jël beneen tour làmb ku nekk surnom yi am nañ fi mënoon na tudd turu boppam mais dafa représenté Kaolack tuddee boppam Bébé Saloum d'ailleurs amul benn Kaolack bu benn combat bu mu pare tax ñëwul fii ñëwul Kaolack. def li mu war a def dem bëre ji bu daanee bu daanut yi ñëwaat loolu man mën naa ko seede parce que combat yu ci bëri ci man lay wàcc mook Baye Ndaw fii la ñuy ñëw ñu toog reer waxtaan affaire yi buy wàcc combat aussi noonu bu voyagé bu ñëwee Kaolack première voyage am bi mu njëkk dem France ci guddi gi bi yaayam génnee àdduna bu ma war xëy dem Touba ci fajar gi fii la wàcc ñu toog reer ci fajar gi mu xëy dem Touba loolu gars yi ñoo xamul rek et puis loolu esprit Kaolack waaye ñooy wax loolu mais Bébé Saloum moom carrière am vraiment lépp daf ci représenté Kaolack à chaque fois buy wax daan maa ngi nuyu waa Kaolack maa ngi woo waa Kaolack ñi xamul rek ñooy wax loolu voilà Kaolack ñoo war a gën a mën a jàppale seen doom ci côté boobu quoi parce que bébé day bëre ñuy jigée jugee fii di dem dañu leen di compter te loolu war na mën a ñàkk war na mën a ñàkk te moom laay fam bi yëpp Kaolack la ko la Kaolack lay lay sago moom lay tiitaroo na gars yi gën jàpp rek xam ne combat bi aussi suñ combat mi ngi woon euh, Espagne ñëw na si jàmm fii la koy préparé woo na Kaolack bi yëpp génn ñu ànd waajandoo yàlla may ñu ci ndam bu soobee yàlla waaw loolu moom d'accord loolu moom jiimaan ñun ñu ngi ci dee maintenant avant muy ñëw ñu ngi ciy waxtaan man ak moom ak sama gars yu bëree bëri ak sama groupe Saalum sama dëkku maam bi nga xam ne moom mu ngi ci biir groupe bi ëpp na presque dix ans di ci joxe ay xalaatam di joxe ay contribution waa group bi ñu ngi pare ak waa Kaolack bi yëpp ndax man aussi ci dëkk bi laa dëkk am fi sumay nit ci sumay nit yi ma xam yëpp dinaa leen woo ñu ñëw jàpp ci kombaa bi la res nag ci côté autorité yi côté boobu moom autorité dama leen di ñaan ñu gën a gesu seen doomu dëkk muy côté musique bi côté football bi côté bëre bi dañuy jàppale seen doom yi ndax li ñuy dem di jàppale yeneen doomu jàmbur yi tey géejawaay ko boo fa duggee da ngay dégg Malick ko Pikine nga dégg Modou Fall déggal Modou Lo Birame Ngingue ak ñeneen ak ñeneen ñoom dañuy jàppale seen doom yi mais autorité yi nekk Kaolack ma ci lancer un appel ku mel ne Pape Demba bi tey directeur général d'ailleurs moom lañ ci voilà mi ngi noonu na jàppale booy bi xam ne booy bi doomu Kaolack la ñun aussi doomu Kaolack lañ te ñoo bokk ak ñoom nekk ci dëkk bi yeneen gars yëpp ñoom Ousmane Noël Dieng Ablaye Xuma xam nga Baye Ciss gars yi noonu yëpp ñu jàppale booy bi quoi ñun ñu ñëw aussi duy stade bi yàlla may ñu ci ndam côté boobu moom maa ngi ñaan autorité yi ñu jàpp ci bu baax a baax a baax di woo aussi sama benn grand boo xam ne sama nit la sama xarit la maa ngi koy ñaan combat bi mu dugal ci loxoom bu baax a baax muy jibi jabu sapronet ngeen yàgg liggéey ak moom aussi di woowaat kenn koo xamante ne bii kenn la ci man d'ailleurs sama lépp la ñoo fawandoo moom it aussi moog bébé ñoo fawandoo muy Alé Mboup artiste Alé mosuma laa woo ci dara yow xam nga man xam naa mais combat bi dama bëgg nga dugal ci sa loxo dama bëgg nga dugal ci sa loxo bu baax a baax ndax kiy bëre open press bi bëgg naa la fa gis sa teewaay bëgg naa ci gis aussi sa loxo bu baax a baax a baax yow xam nga man xam naa te it par dund nañ lu nekk man ak yow ci kiy bëre fim ma teg foofu nga ma teg yow li ma dund ak yow moom laa dund ak moom mu nekk champion ce yow dajal na la lu nekk yow it moom it aussi say événement danaan ñëw ñëw tabaski si lan demee tabaski taxaw ci porte bi di ko ñàkkante di vidé ca bu ko neexoon du ko def ndax fayuñ ko lu ko jar ca duñ ko sax fay donc maa ngi lay woo ci combat bi aussi nga dugal ci sa loxo yow ak waa Kaolack bi yëpp di woo sama gars yi ñëw vacances moodu moodu yëpp di leen wax ne rek combat bi suñ combat na gars yi ñëw jàpp si ñu defal bàyyi ma ñoon bagage nu mu gën a gaawee incha allah rabi. bi quoi débiteur <laughs> na yàgg mais xamuñ ci xole mbembe non bi yaakaar naa ñëpp dégg nañ ko débiteur ci xole mbembe c'est international Kaolack la nekk coofak ak booy tourné pour dem këru gan bi fi lañ nekk di fi bay suñu waar di ñaan xam nga gars yi ñuy ñëw di xool si rek ndax ñun moom suñu métier dañ ko jàng tarbiyu ko aussi mën ko vraiment ndax fi ñu nekk xaw na sori sax ci biir dëkk bi mais fu nekk la nit ñu jógee di fi ñëw kon loolu sant yàlla la waa ñu ngi leen di woo di leen xamal ne rek ñu ngi fi di yëngu am na bagage yëpp ginaar dañ koy jaay tax lépp day nice quoi. commande ku ko bëgg a def fu muy wootee. waaw day woote si numéro yi rek 77 536 84 15 77 536 84 15 boo ci wootee dañ lay livraison à domicile bi am na cak cak yaa ngi fi foo nekk ñu yónnee la ko waaw na Kaolack bi ñëw rek mu nice jaay